moo ñu dóor rek ma ne ñëpp la presse quitte à ce qu'il rentre chez lui. après les gens vont prendre un mandat d'avenir parce qu'il joue en réalité. oh, oh c'est une triste nouvelle. nee disperser tout le monde même la presse. oh. mu way. Guidou Aline Badara Samb borom gassé gassé distribué. ba ci journaliste yi gaas yi leen 2021 yor yor téléphone bi rek daam bo ñaan lu préfet Ndakaaru di lambar lambar ah waay waay waay yal na yàlla gën a sàmm Ousmane moytu leen ndaw ñi souvenir yëpp dañ ko waxee sauvegarde moo tax barki de ma déggee waaja ci kudd gars opération rëbb rëbb gars yi rëbb gars yi nga xam ne dañ saltel projet bi gaasee ah sa copain ñëw na de nañ leen ko gaasee mu dellu këram ñu dem jàpp ji ko ay Ousmane <laughs> ay nit la yéene woon préfet Antoine dem na de nuyul nuyul Ousmane gis naa mu koy tóojal nag lii nag mooy walagaloo walagaloo bi ngi waa ji wax <laughs> yàlla na gudd fan Ousmane tey jii lay yeboo ko samedi juróom-benni fan ci weeru juillet atum 2024 premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko jamono jii mu nga fa nga xamante ni moom mooy ci diwaanu Ndar ngir amal fa nag li nga xamante ni moom mooy ay visite mu ñel li nga xamante ni moom mooy journée setal yu ñu initié fii ci diwaanu Sénégal te nag ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi di président Diomaye Faye daal di koy teg mu nekk nag ab dogal boo xamante ni daan nañ koy jël fii ci réew mi li nga xamante ni moom mooy premier visite bu njëkk moom li la Pastef foofee ca diwaanu Ndar la ko nag fas yéene tàmbale mu tàmbali ko nag ca fa nga xamante ne moom mooy ca plage bu goxu mbaaj journée set setal boobee daal dinay nag riir lool fii ci diwaanu Sénégal ca discours yi nga xamante ne jot na ko fa yëkkati moom leader bu Pastef bokk na a ci exploitation li nga xamante ni moom mooy gaz naturel bile ak li nga xamante ne moom mooy pétrole bile loolee nag ñu bëri doon jox ne dina yàq li nga xamante ne moom mooy napp gi fii ci diwaanu Sénégal loolee nag Ousmane Sonko mu ngi ciy dalal seen xel bu baax a baax di leen wax ne nag jël nañu lépp loo xamante ne dafay matukaay ngir nag lii di gaz bi ñuy jëlee ci Côte li nga xamante ne moom mooy pétrole bu Sangomar bile du affecté benn yoon li nga xamante ne moom mooy pêche bi maanaam nag li nga xamante ne moom mooy napp gi. ba ci sax mbay mi ak li nga xamante ni moom mooy càmm gi Ousmane Sonko la ma xamle ba tey mooy loole nag erreur bu mag la bu fekkente ne nag dañuy exploité li nga xamante ni moom mooy gaz bi ak pétrole bi te nag duñu bàyyi xel benn yoon yeneen secteurs yi nga xamante ni laale nañ ci mbir mi lu ci mel ni nag napp gi nee na nag loolee duñu ko mës a def dinañu def seen kéem kattan ba équilibré li nga xamante ne moom mooy liggéey boobee secteur yu bëri daal di ci laale mu nekk nag kàddu yoo xamante ne lii dafa Pastef yëkkati na ko tey fa nga xamante ne moom mooy ca ndax ñu àddu ci leneen di plante boo xamante ne jamono jiile Mansour Faye daal dina koy jagleel ki nga xamante ne moom mooy Aminata Touré Aminata Touré nag gannaaw ba fi nekkoon ministre fii ci diwaanu Sénégal nekkoon fi tamit jëwriñ ji nga xamante ne moo yoroon wàllum justice ci régime président Macky Sall tey jiile ci samedi bi daal nay fësal ci biir réseaux sociaux yi li nga xamante ne dafay ab plainte boo xamante ne Mansour Faye moo ko ko porté Mansour Faye nag nekk boo frère ci ki nga xamante ne moo fi nekkoon jiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall ab publication la Mimi Touré def di xam le li ni mel nee milliards yu Covid yi lée nga xamante nag ñu bëri dañu doon wax dañ ci war a amal ay audit Mansour Faye junniy milliards yooyu nga xamante ne coow ci réew mi moo tax sax ba mu porte Aminata Touré li nga xamante ne moom mooy plainte jamono jile nag procès boobee maanaam atte ba daan nañ koy yóbbu ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk ci tribunal bu ndakaaru la ñu fas yéene àtte mbir moomee nga xamante ne jamono jiile ñu bëri ci askan bu Sénégal ñu nga doon sàkku nag lu leer ci li nga xamante ne moom mooy koppar yooyu di mille milliards jamono jile nag Mimi Touré mu ngay yàkkamti bile plainte nee na nag famille Faye Sall bile yàgg nañu ko wër te li nga xamante ne moom mooy régime Macky Sall boobee la mu geddoon lànk nag génn ca moo taxoon nag ba léegi ñu daal di koy toppe Aminata Touré nag daal dinay dellusiwaat ci li nga xamante ne moom mooy sonal bi ñu ko sonaloon mu nekk nag njabootu ko Faye Sall googee nee na nag ki nga xamante ne moo fi nekkoon première dame bu Sénégal di ki nga xamante ne moom mooy Marème Faye Sall lu ëpp fukki at sonaloon na ko gannaaw rek ba mu bëgg dugaloon loxoom ci nga xamante moom mooy régime président Macky Sall biile doon jël ay décision te loole nag Aminata Touré mucc si ànd loole tax sax mu bañoon ko bu ñu sukkandikoo ki nga xamante ne moom mooy Aminata Touré dellu si na nag ci digg ma ki nga xamante moom mooy Adama a nekk frère ci kii di Marème Faye Sall ne na nag bëggoon a nekk maire bu Ndakaaru gannaaw rek loolee xamante ne bëggoon na ko nekk di maire bu Ndakaaru nee na nag brisé na carrière politicien yu bëri fii ci diwaanu Sénégal maanaam nag ñu bëri la sacrifié ngir nag bëggoon a nekk li nga xamante ne moom mooy maire fii ci diwaanu Ndakaaru Aminata Touré nee na nag yàqal na askan bu Sénégal ñu bëri li nga xamante ne moom mooy seen carrière jëm ci mbirum politique li nga xamante ne moom mooy dégâts famille Faye Sall boobee def bëri na lool fii ci diwaanu Sénégal ba tax na nag Aminata Touré nee na yee dafa yàkkamti li nga xamante ne moom mooy plainte boobee nga xamante jàpp na ne lu bëri war nañ ko toppee njaboot googee ki nga xamante ne moom mooy président Macky sal ba mu demee wan li nga xamante ne moom mooy nguur gi gannaaw famille Faye Sall boobee dañu taxawoon nag banque seeni loxo moom mu bokkoon ci ñi nga xamante ne dañu jugoon di xeex ba 60 mu joon ci génn adduna nekk ay sénégalais Aminata Touré na nee na mu ngay woo Mansour Faye datub ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru juillet bi ñu nekk atum 2024 na ñëw ca tribunal def li nga xamante ne moom mooy déclaration de patrimoine am ak njabootam ñëw def li nga xamante ne moom mooy seen déclaration de patrimoine ngir nag transparence total am ca mbir ma la muy woote nag mooy set wecc goo xamante ne jàpp na ne ñoom ñoo ñëwee defuñu ko Aminata Touré foofee lay xaar ak nga xamante ne moom mooy Mansour Faye maanaam nag mu ñëw wax li nga xamante ne moom mooy moomeelam wax nag li mu yoral askan bu Sénégal yile kaddu nag Aminata Touré moo ko xamle ci ab publication boo xamante ni biral na ko ci bésu atay bi yaa ngeen jëf mbokk yi ñu doon teewlu ci réew mi TV loolu moo fi yeesandi ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen jërë ngeen jëf.